am na ko mas a indil sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawo ay téere bay dem sëriñ bi ni ko moor mokkal nga jaalibatul maraaxib mu ni ko daanaa ko yër de sëriñ bi ni ko yeggal suuf ma diglu la mu tàmbulee tarim mu koy diglu ba kun lii bi jaahi rasulillahi maalikuna sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawo ni ko ka la dag naa maalik kana joxoñ baaraam ba ginnaaw lii téere bu mu andeeti sëriñ bi ni ko jàng ko bala ngaa dem wér na yal nañ taw borom tawfiixal ak mokkal ko